bismillah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

jeex nañ ci yonent yàlla Muhammad moo ci mujj waaye nag am na ay ndaw ñu fi nekkal ñooña wuutu ñooña taxaw seen taxawaay yonent bi nee na mooy waram xam-xam yi kon garab bi amoon bi ñu jeexee waram xam-xam yi ñoom lañ ko takkal al ulamaa warasatul anbiya yonent bi nee na borom yonent yi bàyyi wuñ fi alal bi ñuy doon xam-xam lañ fi bàyyi ku ko doon doon nga cër bu doon ku ko doon doon nga kon lool it ak cër la ci ne yonent ya xam ne ñoom la yàlla tegoon ci kanam nit ñi ñu wommate ba ñu jeexee suñu borom nee na yonent yi jeex nañ waaye mission bu ñu doon def nag taxawee teg naa ko ci loxoy waroom xam-xam kon ñoo taxaw taxawaay yonent yi di jàngal nit ñi li baax ak li baaxut di leen wan yoon di leen wan jaaruwaay yoo xam ne buñ ci jaaree mën a mucc moo tax sëriñ mag bi ba mu ñëwee xam-xam yitteel ko ndax diine ko yitteel te diine mënta jàkk mënta rafet mënta mat te xam-xam la kenn it du gën ci lu dul ñaar sëriñ jàngale nit du gën moroomam ci juddoom du ko gënee alal ju am walla ay cëri àdduna waaye li nit du gëne moroomam mooy xam-xam bu ñuy jëfe ku am xam-xamu diine bu sell te di ko jëfe jëfe mu rafet yaa gën ku melut noonu loolu la sëriñ mag bi jàngaloon waalam ku ko bëgg danga koy wuti taallam fa laysa al maru yuladu aaliman wa laysa axu ilmin kaman huwa jaahilu loolu la boroom xam-xam ba waxoon sama doom demal nga jàngi nit ki du judduwaale xam-xam te ku xam ak ku xamul nag duñu yem duñu yem yàllaa ko wax bu yàgg qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina la yaalamuun ñaari ñooñu duñu yem ku xam ak ku xamul duñu yem fa kanam yàlla duñu yam fa kanam ñu baax ñi mu ne ko sama doom kon demal nga jàngi ndax ku xam ak ku xamul duñu yem te xam-xam day su ko judduwaale ne ko nit dana doon mag bari ay at waaye ñàkk xam-xam tax mu doon gone waaye nit dana néewi at di gone xam-xam tax muy mag te loolu mbokk yi bis bu set ni gis ko mag mooy koo xam ne fa mu nekk danañ ko bàyyi xel bu teewee danañ ko bàyyi xel bu teewul ñu di ko nekk waaye gone it mooy koo xam ne fu mu wuutee kenn du ko nekk te bu teewee kenn du ko sóoraale am na mag moo xam ne moo gone a ñooyam ci loolu ndax amul xam-xam bañ di ko soxla ci dara dees ko laaj xalaat dees ko nekk ci dara kooku luy atam bari bari gone la waaye lu say at néew néew te kenn du dogal mbir si néewuñ négal ba mu ñëw wax ci xalaatam wax ci lam xam kooku lu atam néew néew mag la moo taxoon mu wax ne eh, wa inna kabira al qawmi la ilma indahu saxirun ida ltafat alayhi aljahaafilu wa inna saxira al qawmi in kaana aaliman kabirun ida ruddat ilayhi al jihaafilu loolu lu mat a bàyyi xel la kon ndaw dana doon mag ndax xam-xam am xam-xam waaye mag dana doon gone ngir ñàkk xam-xam yooyu yépp nag bi sëriñ mag bi dikkee yàlla jox ko ndigalul mu woo nit ñi yóbbu leen ci yàlla defar jikko yi yeesalaat diine ji ba mu mel na ko yit ay salaam indee woon woote gaa ñu baax yi wuy ko maam yu baax yii wuy ko bàyyi seen penc maam ya ak lañ xamoon lépp ngir bëgg xam-xam bu sell bu rafet waaye ànd ak jëfin rafet moo tax ba ñu dikkee it ci yoonu xam-xam ak jaamu yàlla leen woon moo tax ba mu wootee wooteem bu mag ba wax ne ku fi jàng rek andi woon demal dafa gisoon ne njàngum kese doyut nag dafa bëgg ñuy jàng tey jëfe wooteeb sëriñ bi bokk na ci li ko ràññelee njàng mu ànd ak jëfe li ngay jàng la woote ndax fekkoon na ay sëriñ am ci ñoom ñoo xam danañ jàngal nit ba mu wan nu lef waaye nag sol ko xam-xam lañ séq ak moom buñ noppee dañ koy ba mu dem ndax dana jëfe ndax du jëfe seen yoon nekku ci sëriñ bi nag ne moom soxlawut ku ñuy sol xam-xam kese bàyyi ko muy dem boo ëllëgee mën a mel nu ne daa bëgg koo xam ne xam-xam bi ne ci moom bu jëfee mu feeñ boo waxee mu feeñ bu jëflantee mu feeñ moo wax mu woote woon woote boobee ginnaaw bu mu amee ndigalul bi asxaabaka bil himma wala turabbihim bid darsi faqat kon loolu mooy woote bi sëriñ bi lal ko ci ay keno yoo xam ne ba ci jiitu mooy xam-xam jiitu mooy xam ku leen wax ne manis naa doon murit bu matale ak muritam mat sëkk du manqué dara te xamul dara da nax ndax ci xam-xam la ko lal al ilmu naafia al amalu saalih al adabul mardi ñett kenn yooyu kenn bu njëkk bi moo ci ëpp solo ndax bu sottiwut yeneen di mën rafet al amalu saalih du yomb bu ilmu amul al adabul mardi du yomb bu ilmu naafia amul kon moo ci jiitu waaye moo ci solo moo tax sëriñ bi ci woote moom daa gis ne sàkku xam-xam du rek lu baax waaye day farata ni julli ak woor ak yeneen nekk farata di warteef boo xam ne bu ko nit ki dafay am tuyaaba su ko bàyyee am bàkkaar sàkku xam-xam sëriñ bi nee na ci la bokk talabuhu faridatun muammama li kulli muslimin wa kulli muslima loolu yu jàngaloon nee na sàkku xam-xam farata la joo xam ne ñépp la war ñépp la war euh, moo taxoon it ñépp la doon soññi ñuy sàkku ci xam-xam ndax dafa ñëw ci réew mi fekk fii société boo xam ne dañoo xaaj nit ñi ay kuréel ñii ñu ne ay doom yi soxna lañ ñoom dañoo war a jàng ñoo war a jàng yi ñoo moom daara yi ñoo war a yilif ñeneen ñi ñu leneen lañ sëriñ bi ñëw ne déedéet ñëpp jaami yàlla la ñëpp soxla xam-xam ñëpp lañ bëgg ñu xam ndax dañoo war a jaamu yàlla te bu ñu xamul duñ mën a jaamu yàlla moo tax mu ne woon kuunu maan fil ilmi raaxibiina li wajhi man bi bihi yuqiimu diina yéen ñëpp yéen ñépp na ngeen bëgg xam-xam ngir yàlla mi nga xam ne ci xam-xam rek lay taxawale mbaarum diine kon diine mënta taxaw jag te xam-xam la ko moo taxoon sëriñ bi na ngeen bëgg xam-xam ndax nit it lu mu bëggut du ko jox yitte ndax xam-xam doonul lu yomb doonul lu gaaw doonul lu neex bëgg ko laaj na mën a muñ laaj na ñeme coono laaj na yàgg ca ndax am na fu mu wax feneen ne xam-xam du jox kenn léppam lennam la lay jox te bala koo jox bala la koo jox yow nga jox ko sa lépp xam-xam du jox kenn léppam lennam la lay jox te bala la koo jox yow nga jox ko sa lépp loolu la jàngale woon kon ma maan yooyu sëñ bi di wax nañ ko bàyyi xel yëmut ci wax ko waaye da koo jëf ba mu sampee daara ñëpp la dajale ci daara yi daara yooyu sëriñ sëriñ Tuubaa yi mu amoon ak ñim joxoon ndigal ñu jàngale da leen santoon ñu jàngal ñépp góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi doom yi soxna yi ak ñeneen daara ji ñëpp fa ne ko diir bu gàtt mu jëmmal mbooloo moo xam ne ñoom ñëpp nga ay góor a nga ay jigéen ca ay mag ay ndaw ay doom yi soxna ak ñeneen waaye ñëpp di boroomi xam-xam ñëpp di ñu jub ñëpp di ay leer yoo xam ne dañuy wom man ñi den yóbbu ci yàlla loolu bokk na ci liñ yeesal indi ko ci woote bi ginnaaw bu mu fekkee ñu xajale nit ñi néewal lool soxla njàngum jigéen ak ñeneen ñi moom mu dikk ne du noonu jël ay njabootam góor ak jigéen yóbbu ci daara ba ci waa këram am na ci ñoo xam ne yóbbu na leen daara soxna Fatou Tuuti Diop way juru Cheikh Modou Mourtada wax na ne bi muy ñëw ci kër gi al alxuraanam ak gutóor daaralu alimil xabir la ko yóbbu sëriñ daam àggaleel ko alxuraan ba sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana wax na ne bind na juróomi kaamil kon loolu am njàng mag mag la ay njabootam foofee fa daarul alimil xabir ñu bari ci ñoom bind nañ fay kaamil dégg ngeen xisab soxna Maymunal Kubra kaamilam boobee mu ñëwoon jaareem ak la ci xew mbég ma ci sëriñ bi amoon ak taxawaayam gi taxawoon kon moom du rek da doon soññi nit ñi dem leen jàngi mu nekk ay théorie kese waaye da ko doon jëf ñu di gis kon ci wooteeb Sëriñ Tuubaa kuñ naan yoonam nekkul ci xam-xam amu ji ñépp a war a jàng ndigal li muy jox ñëpp la koy jox te ñëpp la bëgg ñu xam yaay wax subaanu yi sëriñ bi doon wax léegi yaay wax subaanu yëpp ñëpp lay wax góor ñi jigéen ñi ay mbokkam jaamur yi képp ku dégg wooteem yaa ngi ci biir kon ci wooteb Sëriñ Tuubaa ku fe ku féetewoo xam-xam moom ko jagoo ko keneen féetewoo leen amu alal yi ñëpp la ñëpp ko war a bu noppee nag kenn ku nekk la man mu defe ko fekk looy def lu ne nga di ko def ci kaw xam ak rafetal loolu mooy wooteb sëriñ bi euh, wax nañu itam nañu xam-xam du ci farata waaye daa bokk ci jaamu yàlla yi gën nee na bu wa baadu fa alam anna xayra mashtagal fatan bihi ilmun wa diinullaahi jàll lu nit di def yitteem daf ko soxlaam di ca xëy di ca gont xam-xama ci gën bu ànd ak kon sàkku xam-xam te di ko jege moo gën ci lu nit di xëyee ko gont gis ngeen yonent alayhi salaam waxoon na ne xayrukum man taallama alquran wa allama buntu xam-xam mooy alquran yonent bi nee na kii ki koy jàng di ko jàngale moo gën ci nit ñi moo taxoon sëriñ bi it ci ñaanam bokk na ci lim daan ñaan maa ngi sàkku maa ngi lay ñaan yi sama borom nga may ma xam-xam bala maa jëf lépp lu may jëf naa ko xam naa xam attee ci aju door ko jëf atlubu minka al ilma qabla al amali faltaqini al jahla wa qut lii amali loolu bokk na ci ay ñaanam radiallahu an waaye moo ñu jàngaloon nañu jëf ju bari bu ko xam-xam lalul njariñ la du bari noonu nañu waman tajarrada li taatil jalil qabla taallumin fa xumrun la nabil képp ku dem futtiku ne damay topp yàlla di dang-dangi ku dégg bëccëg di ñaq tooy xib te jàngoo ba noppi ab dof nga boo xam ne sam xel day na da da da da dof bu yeewuwut nga nit dana dof ba noppi sax yeewu mu ne moom nag kooku dof bu yeewuwut la am xelam daa muuru ñaari yoon ndax ma ngay sonn di dang-dangi te jariñ la du bari kon ku bëgg a jariñoo faw da ngay xam ubbi woon na bunti xam woo ci ñëpp yàlla defal ko taw feexit nag ku nekk ci ronam bu la xam-xam ñoree boo jóg góorgóorlu tuuti am ko loolu kuy topp njaboot gi di xool da gis ne xam-xam ni mu fi yombe wattu fi yombe bariwul fu mu noonu loolu ci barkeb liggéeyub sëriñ bi waaye loolu nag faw nit ki ngir mu jot ci nag def ab góorgóorlu door ca a jot kon loolu mat a bàyyi xel la waaye moo waxoon moom sëriñ bi nit yaa ayyuha shubbaanu in xiftum xajal faqaddimu taalluman ala amal bu ngeen ragalee gàcce jàngi leen bala ngeen a jëf loolu nag ku ne mën na koo xool ci lépp ab maçon rek bu ragalee gàcce tabax ñu sikkal ko xeebee ko ci yebee ko ca ba kenn dootu ko liggéeyloo na jàng métier ba man ko ba xam ko am ci xam-xam leer ba lépp lu mu def ko gis ne eskay métier yëpp noonu la mel diine yi noonu la mel ku taxaw fi julli rek ci kanam yi nit bu fa ko xam nekkee boo noppee dana la naw ndax tegum tegu ci yoon waaye bu jaarul yoon dana la xeeb bu la ko waxee bu la ko woo sëriñ bi wax ne bu ngeen ragalee gàcce jiital leen xam bala ngeen a jëf xëy na gàcce ak àllaaxira ko tax di wax waaye àdduna ci biir nag waaye luy jëf bari bari bu ko xam la dalul bari njariñ mbokk yi moo tax sëriñ bi bëgg nit ñi xam taalifal leen ay téere yu dul jeex sampal leen ay daara fu ne ñaanal leen ba ku sàkku yàlla dafa la barke ci xam-xam nga gis ku jàng lu néew waaye doxe ci xam lu bare bari ndax barke ab liggéeyam waaye nag lum mu barkeel barkeel nag nit ki day jàng jëm ca barke boobu dal koo topp kon bëgg nañu jàng lool waaye nag njàngum sëriñ bi moom day ànd ak jëf soxlawul rek ay net ab nettalikat boo xam ne lépp la mokkal lu ne mën na caa wax waaye nag bu jëfee ñu ne xanaa du kii sëriñ bi moom daa bëgg ku ñu xam xam-xam bu rafet ak jëf ju sell lay àndal moo tax mu ne woon wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faaza man lahu xasal lakin ma thamaruhu kan nafa'i fi amalin bihi fa kun sal jamaay noonu nañu xam-xam moo gën jaam moo gën jëf mooy fondement nga mit waaye nag njariñul xam mooy jëfe njariñul xam mooy jëfe kenn am mënta am meññet amoo garab waaye garab gu dul meññet bariwul njëriñ loolu kon bëggoon nañu boole ñaar yi waxoon nañu it dañu xam-xam bu ànd ak ñu di ko jëfee texeg àdduna la ak alaxira waltaalaman bi anna ilman wa amal huma wasilata ci ajal huma wasilata ci ajal ku bëgg a taxe àdduna ak alaxira góor góorlu ci xam tey jëfe la nga xam boo ko defee da nga am taxe àdduna ak alaxira noonu nañu it xam-xam day wommate ci lépp luy bégal nit waaye réer day wommat jëme ci lépp luy lor nit alel mu qaidun li ma yasurru wal jahlu qaidun li ma yadurru loolu lañu jàngaloon waxoon nañu ne aleykum wa bil ilmi inna al ilma huwa alladi yadfau ankum xamma fonku leen xam-xam ndax xam-xam moo leen di jañal njàqare bu ngeen nekkee ci njàqare bëgg cee ci fexe leen ba xam rek bunt bu leen di musal ci njàqare day yomb ci kanam seen kanam yu bare bare la ci wax waaye dem na ba demit mu gis ne jamono dana ñëw am ñuy woyofal xam-xam ak di ko sofental di ko doye sëriñ bi wax na ak ñooñu waxoon nañu nañu képp ku leen tere xam-xam gis ngeen ñetti wa man nahaakumoo yooyu ku ne war na ko bàyyi xel ku leen tere xam-xam bokk na ca nahyu ila dalal yantami tereem googu ci ak sànkute ak réer la la jëm waxit ne wa man nahakum an taallumi fa innahu yaquudukum lin niqami ku leen tere xam-xam ngi leen di wammat jëme leen ci ay mbugal waxit ne wa man nahakum an taallumi fa huwa xalifatu laini almujrimi fi kulli ma yufsiduhu wallahu jal xasibuhu yowma aljazai walwajal képp ku leen tere xam-xam mooy xalifab iblis ci kaw suuf lu fi iblis doon yàq moo ko yàq moo ko fi wutu tere xam-xam nag mbokk yi ay anam yu bari la du rekk xam-xam baaxut baleen xam-xam waaye bokk na ca ki toll ci jàng nga war koo yóbbu mu jàng nga téye koo jànguloo woo kooku tere nga ko xam-xam boo ko waxee ci salaam ñeg bokkoo ko sëriñ bi daan na wax ne ndaw lu toll ci wattu alquran ñu sàggane ko ba wattuwu ko amul ci kaw suuf lu ko jar amul ci kaw suuf lu ko fi jar kon loolu ci xeetu tere xam-xam la bokk ba tey bokk na ci war a mën a dimbale nit ngir mu sàkku xam-xam nga toog di ko seetaan la muy soxla buy sàkku xam-xam day léeg nga gis ndaw loo xam ne xam-xam dana ko ñor am ci yitte lool waaye nag amuti jumtuwaay ña ko ci war a jàppale it kenn du ko ci jàppale kooko lu ñàkk ci xam-xam ña ko waroon a jàppale te jàppale wuñ ko ñoo ko xaj ñooñu it danañ dugg ci biir ba mën naxaa ko moo joju kon loolu lépp bokk na ci li nga xam ne war nañ ko bàyyi xel baax a baax waxoon nañu it nañu moom sëriñ bi ne fa kullu man daya ilman bi sunan wa bi faraida wa yartajil minan fa huwa du dalaali wal idlaali jazaauhu intiqaamu zil jalaali képp ku sànq xam-xam bu ànd ak sunna ak i farata ba noppi di yaakaar yaakaari xéewal ku réer la tey réer le ak fayab ëllëg mooy mbugalum yàlla kon moom sëriñ bi wàccoo na ak ñun ci wan nañu xam-xam taalifal nañu ay téere xam-xam bàyyi bi sant ñuy jàng dafal ñu barke ci njàng mi sampal ñu ay daara wutal ñu ay jàngalekat yoo xam ne ay roy waay la lu ci des kon moo ñu jàng bàyyil ñu fi ndono loo xam ne it nag xam-xam rek ko mën a sàmm sëriñ bi nee na bi xidmatil kitaabi wal xadiis yatbutu laa bi dahabil mawruufi nee na sama ndono du màdda du màdda moo ko fi téye te màdda nag mbokk yi or a ci gën a ëpp xiima xaalis bi ñu yor sax or a ko garanti nee na or moomu du mooy téye sama ndono man sama ndono xam-xam moo koy téye kon fu taalu jàng di di bërëx ñu leen yar yarub diine ndonol Sëriñ dafay des ba faw moo tax mbokk yi lii ñu naal di lu am solo yàlla na suñu borom àggale ko ci bu gaaw ci kanam kilifa yépp ndax loolu lay jëmmal mooy sàmm ndonol Sëriñ Tuubaa ne nii mooy taxawu xam-xam yar nit ñi yarub diine baleen mi dem nag jamono yu ñu toll mbokk yi kenn mën toj sa njaboot mag ñi tawféex ji ñu amoon ba ñuy toj àll yi kuñ fi indi bu ñu la deful dara sax nga baax bu ñu la bàyyi woon ci àll bi rek lu baax ngay dégg moom ngay gis da ngay daal baax waaye léegi loolu kenn mënatul léegi àll amatul fa gën a sori ci àll bi tey internet baa nga fa télévision baa nga fa lay xew Amérique ak feneen lu nit ki néew néew yi at mën na koy xam jamono ju mel noonu nag mënoo takk bëti nit ki ne ko dootoo xool walla doo gis loo man yar ko yee ko mu xam te xàmmee gis lu baax ba fu mu ko gis jël ko fu mu gis lu bon moytu loolu rek moo mën a musal ndaw ji kon loolu nag fexe ba jàngale leen njàng mu leer wéeru ko ci njàngale sëriñ bi nga xam ne lépp leer la ñu doon ñu jub ba mën a jubal loolu mooy liggéey bi fi mu fi mu toll kon am na solo lool ku ci xalaat waaye sëriñ bi nag ci mën a jàngaleem bi mu waxee xam-xam ni amee njariñ ak ni mu baaxee ak ni mu nekkee lu mënta ñàkk waaye nag moom dañoo woo ci buñ koy sàkku nuñ koy sàkku fekk ni fi ay nit ñuy sàkku xam-xam ngir yeneen amoon na ci jamono ñoo xam ne danañ sonn lool ci njàng laxas tas seen kër dem jàngi ndax lan sama bàyyi xaw di la woon wala imam la ci dëkk bi ñu ne ko boo jàngut téere sàngam doo doo fi nekk imaam wala doo bi mu tas këram dem jàng kooku jàngut ngir yàlla ndax bis bu gisee lu ko gën a loola mu bàyyi jàng sëriñ bi nag wax ñu ne yéen bu ngeen di jàng lu leen war a tax a jóg mu ne ñeenti yëf fal taqsidu arbaatan ladabtidaa ladabtidaa taallumin li kay tafuuzu bil huda bu ngeen jógatee di jàng am na ñeenti mbir yoo xam ne na ngeen ko jiital muy muy seen jublu bi ci jiitu mooy alxuruju min dalal na seen yéene doon génn ci ak réer ak réer pax la moo xam ne ku ca dugg ëllëg sawar rek ngay gindikoo yàlla ñu ci yàlla musal fii ci Ceyeen sëriñ mag bi radiyallaahu anhu bis joxe na ci bind bu rëy ay nit ñu yónni woon guddi gi ñu gëlëm sëriñ bi tàllu ab sébb bi sébb bi bërëxee ñu seen jeneer ba topp ko ba agsi muy dëkk bi bi ñu nuyoog sëriñ bi laaj leen yaax gay ñëw ñu ne ko dañoo réeroon mu ne leen lu leen gindi ñu ne ko jëneerub taal bi moo ñu gindi mu ne leen ëllëg yowmal xiyaam ku fa réer ku ne sa gindi bind bu réer la ci joxe kon nit ki na fas yéenee génn ci ak réer ak réer boo ci nekkee sa dund dana sànku ñeneen nit dana la jël jariñoo sag dund jaayi sa diine ak sa àdduna jariñoo bari na tey mbokk yi mbooloo yi bari ñoo gis ay ndaw yu toll seen digg doole di dang dangi ba bëccëg di ñaq topp ci ginnaaw koo xam ne jëmewu leen fenn réer rekk tax ñu ànd ak moom ku gindiku doo topp ñooñu loolu moo tax sëriñ bëgg kuy jàng na bëgg a gindiku jiitu ci sa yéene ñaareel ba nee na mën a jariñ nit ñi sëriñ Tuubaa daa bëgg nit koo xam day amal njariñ nit ñi yonentu ay salaam moo ne woon nit ñi njabootu yàlla la ki gën ci ñoom yaa gënal yàlla wa thani nafoo xalqi sa jalaali amal njariñ nit ñi nag weesu dara jiituwu ca bàyyi leen fi xam-xam boo xam ne ku ca jàng njariñu ku ko topp gindi masalan tey boroom xam-xam yi fi jiitu woon jaar bàyyi fi téere xam-xam ku leen ëpp tuyaaba waaye waxtu wu ne nit ñaa ngi jariñ ci seen xalaat di jariñ ci seen xam-xam yooyu muy yubur dakk ba yomal xiyam Sëriñ Tuubaa téere yi mu taalif waxtu wu ne ñu koy gën di jël di ko tasaaree ñeneen nit di ci jariñu aw yiwuru dakkale woo xam ne kenn xam fu mu yem waaye ñi ngi jariñ nit ñi saa su nekkoon bu fi nekkee ak bu fi nekkul kon bëgg jariñ nit ñi nee na mooy yéeneem ñaareel bi ñetteel bi bëgg a dundal xam-xam ku jàng ba noppi nag du ne fi may fekkoon maam ñoom agsi naa fa taxaw naa Sëriñ Tuubaa ba mu agsee ba fekk ñam fi fekkoon fañ doon ñam da ko weesu fekk téere yu jàng mu jafe ba mu jàngee ba noppi mu bindaat téere ya gën koo yombal gën koo dëppaleek dii am ci kanam way juram way juram bàyyi na di jàngale téere yi mu doon jàngale di jàngale téere yi sëriñ bi taalif Mawahibul Quddus mujj na ci tawxiid Mamoor Anta Sali Mawahibul Quddus lay jàngale jàngaleetul Umul Barahim bi nga xam ne moom la doon yor bi ko sëriñ bi woyee daa bàyyi cosaan la di jàngale taalifu sëriñ kon kooku mu ngi dundal xam-xam sëriñ bi daa bëgg it xam-xam ñu fekk fu ko fekk ñu ndax ñi fi nekk nii li ñuy jariñoo nii ñeneen ñuy jiitu ñoo ko yokk accès ci noonu ñay ñëw ëllëg war nañ leen fa bàyyil xam-xam bu ñu jariñoo daara yu mel nii nag loolu mooy liggéeyam kon lu am solo la ba ca mujj mooy nee na nañu sàkku xam ngir mën a jëf jëf ju ci xam ndax yàlla bëggul ku welam nañu sàkku xam-xam ngir lépp lu ñuy jëf buñ la ne woon lii lu tax nga di ko def nga mën a indi dalil bu leer bu diine nangu ne moo tax nga di ko def ndax lislaam xamut def rek lu tax nga ne daal inna wajadna abana ala umma de daa bëgg li ngay def lu leer ci sa bopp kon sëriñ bi jàngal nañu lu ñu war a yéene ci loolu waxoon nañu it nañu xam-xam du lu ñu yeexe bul wax mukk naa néeg ba loolu nag way juree ko moom gone gu toll ci jàng amut lu gën a far ci moom jàngal ndaw yi mënu mënuñ leneen mbokk yi demi tool di leen jaayloo yépp tooñ leen la jàng dal lañ man xel yu neex lañ am loo xam ne loo ci sol mu des ci dana ko jàpp waaye loolu diir bu gàtt nag mu tàmbalee wàññi moo taxoon sëriñ bi wax waxam joojee ne ndaw lu toll ci wattu alquran ñu sàggane ko wattuwu ko amul ci kaw suuf lu ko jar te mbokk yu ba ndaw ñu bari nag tey la leen te wattu alxuraan càgganteeg ña leen waroon taxaw la waaye bu ñu leen teeloon a yóbbu yar leen danañ wattu alquran te bu wattu ñu wattu alquran jàng xam-xam bari woon rek jëf yu bari yu ñuy jàmbat di ko ñaaw dana dana néew mbaa dana jeex ci réew mi ndax ñu jag ñu mel na ñuy sëriñ bi defaroon ñoo fi nekk te su boobaa lu fi yàqu ko ñu defar ko moo tax sëriñ bi bu leen yeex xam-xam jëm mag ndax loolu day xañe ak njub waaye noonu nañu it nag jàng leen xam ngir xàmmee bu leen doon ñoo xam ne seen mooy daal xam daal naa fexe ba fu nit waxee ma wax fu ñu waxee ma wax daal moo ma tax jóg déedéet sëriñ nee na laa tatul ban mu jarat riwaaya bal dumma ilmaha ila diraaya xam-xam bu ànd ak xàmmee la sëriñ bi doon woote jëme ci waaye xam-xam na ku ko bëgg doo jot koo jot àndal ku jàng xam-xam sëriñ bi neena wutali àndandoo aleykum bi soxbati l axyaari fi talabil ilmi li wajhi l baari dem leen ànd ak ñu baax ñi ndax ku baax mooy koo xam ne booy ànd ak moom di jaxasoo moom ci wàllu xam-xam li ngay xam day yokk tey gën di leer waaye di fexee yi jàng di ko mokkal di xam di dégg xam-xam du rek lu ñu laaj nga ne naa ubbi téere bi door a naa ubbi téere bi door a wax du fé du fépp du fépp la nit di yore téere am na ci xam-xam yoo xam ne moom daa war ne ci dënnum nit ki na imam Shaafi doon waxee ne sama xam-xam mi ngi ak man nekkul ci ay kees ilmi maa yi xaytu maa yammamtu yatbauni sadri wiaun lahu la batnu sunduqi in kuntu fi l bayti kaana al ilmu fihi maa yi aw kuntu fi fi suuqi kaana al ilmu suuqi fu ma nekk xam-xam baa nga fa moo tax ndaw ñi ñu bëgg ñuy xiir leen ci mokkal sëriñ bu mag bi radiallahu anhu misaal la woon ci mokkal muxtasaru xalil sëriñ Mahmoud Bachir nee na sëriñ bi ko mokkaloon bu yàgg ba nettali na ko ab diggante mu doon seetaat mokkal gi waaye nee na gis na ne dara rëccu ko ci lim jàngoon lépp da ko mokkaloon xam-xam ñoroon ko lool foofu it dana jar bàyyi xel mbokk yi ne xam-xam ku ko bëgg nag da jox yitte te am taalibe murit moom bu delloo xentu mboorum Sëriñ Tubaa gëstu taarixam xam-xam ñoroon na ko nettali ne moom ba muy jàng yitte jum amoon ci xam-xam amutoon soxla ci leneen ba mbooleem ñi mas a bokkal daara moo leen féete woon kaw dana juñ rek kenn ku ñuy wax balla maam ne moom rek la gisoon ne yitte ji mu am ci xam-xam amoon na ko waaye nag sëriñ bépp gënoon sàmm nee na bokk na ci lii firnde loolu nee na téere bi mu njëkk am muy téere xam-xam bidaayatul hidaaya la bu imam Ghazali ab naaru gànnaar la gis mu yor ko mu ne ko dama ko soxla naar bi ne ko dama koy jaay dërëm laa koy jaay sëriñ bi ànd ak moom dem ci benn yaxantukat boo xam ne taalu bépp Mahmoud Ansari woon moom la doon jànge waaye booba mi ngi sol loo xam ne lu doy war la bi ko sëriñ boobu gisee rek daal di wut mbu mu baax jox ko ne ko summi lii nga sànni ko te sol mbu mi teral leen daal leen yeewu ñu dem waaye joxu leen dara lu dul loolu biñ génnee sëriñ bi ne naar bi ndax bëgg nga mbu mi ma sol ma jox la ko te nga jox ma téere yi naar bi ne ko waaw waaw sëriñ bi dem foraat mbu moom sànni woon solaat jël mbubb mi mbubb mu yees mi jox naar bi naar bi jox ko téere bi nee na téere bu njëkk am noonu la ko amee mu di ko jàng ba ginnaaw bi nee na bi mu jàngee arul jàng naxu ci la ko way muy mu layinu sudur ginnaaw bi la ko sotti soppiwaat daf ko mun a wéru sudur ku xam-xam jaral loolu mbubb mi nga am mu tane nga xam ne ñeewantu la moo tax ñu jox la ko nga mën ko joxe ngir xam wax na ne it bi mu jàng ci Mamour Amsali Mamor da ko fonkoon ba yu bari daaw ko def loolu te moom nee na daa bëggoon barkeb xam-xam bëgg barkeb booy jur bëgg barkeb sëriñ bi koy jàngal te Mamor nungu ko def la yu bari ngir it moom gis na li yàlla def ci moom waaye nee na yàlla da koo dimbaloon mu ma teel a mën a bind nit ñi di ko binduloo waxtu ne waaye lépp luñ ko ci mas a jox ca saasa da ko yit Mamor Anta Sali ba nee na mujj na lépp luñ gis ci kër gi. boo laajee ne ku ko moom ñu ne ko Muhammad nee na xam na ne ci moom la jëm si nee na ci noonu laa jaaree ba sama borom dafa ma barke xam-xam kon waajuram di sëriñam te gis ngeen xaalab nu cheikh ci njalbeenam loolu rek la doon wax ndax Mamor nag ëpp ci xam-xam Mamor ko jàngal mu sonn ci lool ba mu noppee daal di sóobu daara ja tàmm lu jàngale ba mujj na sëriñ Basiru nee na daara ji mamoor ba mu ko nattoo ba gis ne. kii moom leneen la daa mujj bàyyee ko daara ji dong yu bari sax nag dematuñ ci Maam ndax am njàngale bi daa baroon ba nepp di mag mu naqari rek du nangu ko laaj ñu ëpp ci dongo yi ci sëriñ bi la ñemoon moo waral ñu nag bi sëriñ bi wootee wooteem bi ñu fekk ñu xamoon nañ ko dem bu ñoom ñu daal di bokk ci njëkk wuy si woote kon lépp lu mu lal xam-xama ko laal xam-xam bu leer nañ waaye nag mu bëgg nag nit ñi lañu ñu xamit mu rafet waaye nañ ko jëfee jëfin rafet loolu moo lal woote bi woote bi xam-xam la kon mbokk yi ku ci génn xam-xam woote bi jeex na loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax moo tax kon lii sëriñ Muntaxa woote mur yépp ci war a wuy si sosut dafa sof dafa yeesal ndigal lu fi nekkoon naka jekk ku fi a jaar rek woote nga ci xam bi sëriñ bi mag bi daara jooju ñu wax ne moo nekkoon ay bébitam sëriñ Mbàkke bu su nee na wutalu na ko ay téere yu bari ba dajale ko def bibliothèque bu rëy wutoon na it waxoon na Cheikh Moualla mu wutal ko ay ndaw yu mën a jàngale ci am xam-xam ba mu waajaloon leen ngir bëgg bu daara ji noppee mu indi leen fa ñuy jàngale sëñ Abdou Lahad Mbacké radiyallahu anhu bi mu laajee mag ñi ñu nettali ko loolee ca kon na barkeeloo ca daaree kaamil jooja ba daal defar maktaba bi njëkki ko indee fa téere ñàkk ci alal ju bari téere xam-xam yu bare bari ñu dajale ko kon kilifa fi jaaroon yépp am nañ taxawaay yu rafet ngir xam-xam boobu dekki xaraf boobu sax Cheikh Mawlud Fadil gis ngeen bi mu tabaxee jumaa ji ba mu àgg la fa samp daarul maarifil islamiyya loo xam ne jàpp naa ne ñu bari ci mbooloo mi xam nañ ko benn ci man mii ak ñu bari fii ñoo xam ne xam nañ daara jooju bari na tey ñu ñu tudd tudd xam-xam foofu lañ sox foofu lañ jógee yooyu yëpp nag tey njombaxtan li koy mottali mooy naal wi Cheikh Mawlud Muntaxa naal kon mbooleem fu ab murit nekk na yëg ne soxlaam la war a doon taalibey Sëriñ Tuubaa yu njëkkee ñoo manoon ñëpp jaamu yàlla waaye ñoo leen rawoon ci xam-xam ku mas a sóoru mbërum Sëriñ Tuubaa ci xam-xam ba ngay daw kenn tagg tagguwoo niñ leen mane woon ci jàmm yàlla ak jub noo lañ rawoon loolu nag ku bokk ci Sëriñ Tuubaa loolu nga war a bàkkoo foo xëy fanaan boo xëyee bu ñuy laaj ku jub wala ku xam ku yaru ku amal nañ njariñ nañ la joxoñ te loolu mag ñi tasaaroo ci àll bi nit ñëpp topp leen Sëriñ Tuubaa néew daw jël ni rek ne la kaay seexal naa naal demal noonu dalay defar ba nga jàkk mun la demal foo nekkati ku ñëw na ko jaarale fi ñu la jaarale waaye foo wàcc boo fanaanee boo xëyee sa njub sa mbaax sa diine sa xam-xam mooy xëcc nit ñi comme acier di ñëw cëw yow duñ ko sañ bañ te ku dikk njariñam la fekk bu toogee dootu dem loolu nag mooy téye nit waaye ku jaxasoo yow xemem yow lu baax te bu la gisee sa biir fekk dara nekku ci loolu mbokk yi tas yaakaar la te ab jullit du tas yaakaar kon ku doon xam-xam ku doon njub doon mbaax sa yitte jëpp war naa doon loola fulle ci làmb la fa daj ndono yiif maam maam bàyyi muy ndonay xam-xam kenn duñu ko sàmmal kenn duñu ko sàmmal suñuy noon yàq ko lañuy def waaye duñu ko sàmm kon ñun ñoo ko war a sàmm Sëriñ Tuubaa nag noonu nañu bi xidmatil kitaab wal xadiis kon loolu mooy sàmm ndonoom ndonoom alxuraan xam-xam moo koy sàmm moo ci jiitu kon nañu bàyyi xel loolu ñun ñëpp te dox jëm ca su ko defee incha allah njëriñ lay doon nag alaxira euh, bokk na ci liy firndeel xam-xam gu ñor Tuubaa dëkk bu tedd bu mag bee daara la fa doon sanc ñaan ngaa nangu xéwale baawaan lépp fekk si ko waaye waccaxalu da ban maskana taxalu mi la waxoon na des di daara Tuubaa nag du maanaa maanaa la maanaa la ab xalaat la daaru saam gi tubaa la war a doon feneen fu mën a doon ci pakki waa kër sëñ tubaa yi ay tubaa lañ doon xam-xam moo war doon baas bi ñu fiy jubal nit ñi di leen fi yare di leen fi gindi ba buñ génnee doon ay jum di nit di leeral moo tax foo fi dem man fekk fa ñu yitte wa xam-xam sama xel dana dal ci ne barab booba dana jëm kanam waaye maam ya ko fa sampoon seen xel dal na ndax loolu rek moo taxoon ñu samp ko fa lu ciy ñëw ci wàll si nag mën na caa wàll si ndax ak ñaan bu nangoo xéewal bu tasaaroo lu ne mën na caa wàll si waaye nag liy ndey bi nekk laltaay jëm waruñ ko sàggane te yépp nag xam-xam ak diine moo ko lal kon ñi ko yittewoo dañ leen ñaanal suñu boom sàmm leen te dëgër leen bu baax a baax euh, sëriñ bu mag bi bi mu sampee bi mu wootee wooteem bi tabax daara moom moo doon jàngaleel boppam ba former ay kaadar samp leen yor daara ja moom wéy nag di tarbiya di tarqiya di tasfiya waaye mësta mësta tàggali ko ak jàngale am na foo ma solo mu fu mbind wax ne boroomam araamal na ci moom bàyyi jàngale boroomam araamal na ci moom bàyyi jàngale kon moom léppam jàngale la bañ na ko ba fu mu a toog saa bu jullee farata ba noppi tombam yooyee ay duruus lan doon di sol ay xam-xam ci yeneen anam bu kawe ñooñu di génn ba ci lim mujj digle it bokk na ci xutbatu wam sos boobu sëriñ ba Lamin Jóob Dagana nettali nga xam ne gaawula ko bind la ko wax di béer altine mu wàccub liggéey nit gisaatu ko fii bokk na ci la mu waxoon ne ngeen xam lu li ngeen war a xam te di ko jëfee xam liñ leen tere ngeen ba ko loolu bokk na ci li mujj digal taalibe yi fexe leen ba xam liñ leen diggal ngeen di ko jëfe waaye xam liñ leen tere ngeen ba ko kon jàng leen moo jiitu ci ndigalam waaye moo ci mujj mbokk yi kon loolu lu mat di fàttalee la rawatina bu dee ba suñu kilifa ñëw bëgg koo suuxataat waaye fekkoon gaa ñu baax ñépp it nag foofu fu ñu fa sa sanc rek daar lañ fa sancoon kon njaboot yi xam loolu ba tax ñu bëgg dundal loolu nañ xam ne lu rëy la lu metti nag lay lu diis loo xam ne ku ku yàkkamti danga daw ku ragal danga daw ndax da nga ci dégg lu ne waaye nag ku am cës lay lu mel ne Sëriñ Tubaa ak njabootam gi ak ñim yar ku la woo ci lu dul lool da nga xam dalee nax am na ñoo xam ne bu ñu sañoon tey nit ñi duñu xam dara ñu mën leen di noggatu di leen nax di leen jariñoo Sëriñ Tubaa nag mësu bëgg loolu ku jag ku jub ku mat koo xam ne fu mu fanaan bu xëyee tàmbalee soppee te kenn du ko mën a soppi loolu la soxla ab tën ku dara nekkut ci ma mbokk yi fu xëy fanaan bu dajee ku ko gën a réewum xel mën na koo soppi kon ñu bari ñu jàmbat ay njaboot yu génn ne ci yeneen bàyyi lañ nekkoon responsabilité booy jur yaa ngi ndab du witt boo ci deful dara keneen def ci mbaa ngelaw solo ji loolu la borom xaw wax ndab du witt yaa ci da nga koy duy ba mu fees kenn lu ci mën a def dara waaye defoo ci dara kenn du ci def dara yàlla muy loolu kenn loolu nañ ko bàyyi xel mbokk yi. maa ngi jégalu nag di baalu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamu wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahman ci ni nga jotle waxtaan wi ñu la santoon mu jëm ci wàccuwaayu xam-xam ci woote sëriñ Touba yaakaar naa ñun ñëpp maase nañ dégg ni mu ko jottali ko ak ni mu ko leeralee. leeral ci biir wàccuwaayu xam-xam ci lislaam ci boppam ndax yàlla moo ko firndeel ci alquran ci barab yu bari wax ne ñi jàng ak ñi jàngu duñ mën a yem wax ne it moom mooy yëkkati ñi gëm yàlla te am xam-xam moo yëkkati seeni daraja waaye yonente bi tamit sallallahu alayhi wa wax ay wax yu bari yoo xam ne ni day jëm rekk ci leeral solos xam-xam ak wàccuwaayam ci biir lislaam ñëw ni tamit ci sëriñ Touba ci wàccuwaay bi nga xam ne jox na ko xam-xam te loolu dara jiituwu ca mooy mu jàng ko na ko war a jànge sonn ca it coono ya am njàng laaj ba yàlla ubbil ko ci lam ko ci ubbil waaye tamit mu wane it ñor goo xam ne Serigne Touba am njàng mos na koo ñor mu teel ca jublu teel a jublu ci jàngale teel a aw way juróom ci daara ji ba mujj ñu baree bari ci dong yi defar yam ca moom waaye jàppale way juróom it ci am njàng ak jàngale te mooy téere yi ñu doon jàng téere yi nga xam ni xaw naa fasu mu gën koo yaatal gën koo leeral ba buñ ko dee jàng njàng ma gën a yomb dégg gën a yomb waaye sax mu jaral ko mu tumuranke ngir mën a am ay téere yu mu mën a jariñoo waaye tamit mu sos ab dëkk nag muy dëkk bii ñuy wax Tuubaa ngir benn jubluwaay te mooy jubluwaayu xam-xam mu nekk ci di jàngale ba ni mu xëyee génn àddina bàyyiwul jàngale moom kon loolu yaakaar naa soññ bu rëy la bind bu rëy la boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi tuddoo sëriñ bi wallu xam-xam waroo koo ginnaawal wàllu xam-xam waroo ko sobental waaye da ko war a def mu nekk sa yitte ji gën a mag nga jëm caa góorgóorlu sa kem kàttan yar ci sa njaboot ndax loolu mooy ndono li am solo mooy ñu fexe ba njaboot gi ñu yar leen ca la mag ña nekkoon te loolu nag dara du ci jiitu jàngal leen li ñu war a jàngal ci xam-xamu diine jàngal leen tamit li ñu war a jàngal ci xam-xamu àddina ndax ñaari ñoo ànd diine ak àddina ñoo ànd nit du xam diine képp réere àddina su ko defee ay mbiram dana des waaye du xam àddina képp réere diineem su ko defee ay mbiram dana des dafay boole ñaar yépp xam li war a xam ci diineem xam tam li war a xam ci àddina bu ko defee ak dundam ci àddina mën a jag ak dundam tamit ci àllaaxira mën a jag ndax la koy jagal mooy diina ji mu topp di xam li yàlla bëgg mu cay góorgóorlu kam kàttanam xam li yàlla bañ mu di ko wattandiku loolu mooy tax mu mën a mucc àddina mën a mucc ëllëg dara luy soppee du ko mën a soppi dara luy fàbbee du ko mën a fàbbi kon mel na ni jàng moo war a jiitu ci képp koo xam ne yor na njaboot jàng la war a def yitt ji gën a kawe fexe ba ñu jàng jàng alxuraan jàng la ñu war a jàng su danañ ko noppal waaye tamit danañ noppal tamit xeet ba nga xam ne ci la ñuy dund ba du duñu indil ay fitna wala ñu leen indil ay lor kon sëriñ bi ñu ngi sant bu baax ci turu daa daaira bi daairatul mubaaraka ak mboolem njaboot gi di sant bu baax ci taxawaay bi ak waxtaan wi ni nga ko jottalee ba kenn ku nekk ci ñun man cee jële ay njariñ yu bari man cee jële ay bind yu bari yoo xam ne dana ko mën a yóbbuloo kon nuñ ko baaxoo defee ci jataay bu mel nii muy su sëñ bi waxtaanee ba noppi ñu jël tuuti ay laaj su ko defee mu indi ci ay leeral ndax loolu ba tey ci njàng mi la bokk muy laaj dafa bokk ci wàllu jàng nit ki li mu xamut bu gisee comme yaakaar ne moo ko ci tane mu laabiire ko ci sëriñ bi kii day laaj mu ne koo xam ne dafa amee jàngoro yu asma ñu jox ko benn pomp boo xam ne daf koy jëfandikoo saa bu ko daanelee ngir mën koo dalal muy laaj ba xam loolu bu ko defee ci weeru koor ndax mën naa yàq ak kooram walla déet wala ndax bis booba dana ko fay wala du ko fay waaw jërëjëf Serigne Cheikh pompe asma de ci mazhab bi ñu nekk bokk na ci li yàq koor ndax matière boobu ñuy pompe nit ki muy jàll ci biiram di fattarñi ñi fatt day day day jël maanaam xeetu ñam lañ ko jàppe moo tax ñoom dañuy wax day dog koor kon su dalee nit ki ngànt la am day dog kooram saa yu wéree mën a fay bu dee nag koo xam ne asma bi daa dëkk nga xam ne amul benn biis bu boo xam ne du ko mën a jëfandikoo bu dee luy wéy ko koor da koy wàcc ndax mënatu ko waaye fii nag am na bis yoo xam ne danga xëy ba jant bi soo du ko dal bis yooyu da lay day lay woor kon saa bu ko dabee mu dog kooram bu ngànt la jeexee mu fay su gisee nag ni mënuñoo tàggoo moom day dugg ci ñi nga xam ne mënatuñoo woor ñooñu dañuy sopp su boobaa bis bu set ñu joxe am mudd am mudd cinq gramme ci ceeb wala dugub mu saraxe ko lañuy sopp ci moom ndax mënatu ko waaye da koy wàcc su boobaa jërëjëf sëriñ bi kii tamit dafay laaj lu jëm ci université bi nga xam ne moom la sëriñ Mountakha bëgg tabax tabax ci Touba ngir yokk xam-xam muy laaj ne ginnaaw yow kenn ca ñi nga bokk ñuy taxaw liggéey bi ci wàllu doxalin njàng mi ak la xam naa dafa bëgg xam programme njàng mi ni muy tëddee ñu mën koo tënkale ngir ñu am ci tuuti ak leeral waaw sëriñ bi li muy naal ab jàng bu rëy la boo xam ne mu jàmmaaw Cheikh Ahmed al Khadim li tarbiyati wa takwin la ko tudde ab complexe la boo xam ne sëriñ Tuubaa ko moom complex nag dafa ëmb daaray alquran ëmb daaray majalis ëmb ab kulliya boo xam ne dirasat al islamiyya wala xul la waaye ëmb it yeneen kulliyaat yuy jàngale mbay ak xeeti métier yi waaye la ci soxal gën a jëm gën a jagoo diine moom mooy daaray alquran bi daara la joo xam ne xale yi dañ koy dëkk ñu leen di jàng alquran tegal nañ leen programme boo xam ne séddale nañ ko ba seddale ñaata dars la alxuraan ji doon nga xam ne xale bu ñu ko jaaralee xam nañ ne bu fekkee ne tolloo nag programme bi nangami dars mën nañ ko wax ne ko nangami bis ci la jàng alxuraan ji boole ko nag ab yar ba ma ngi doon yara démb di ko tuddloo yàlla di ko jaamuloo yàlla waaye di ko tàggat yeneen loolu mooy daara alxuraan ji moom juróom benni at lañ fay jële nit jàpp nañ ne it ku fa def juróom-benn at gën jaay ak mokkal alxuraan ñeent at lañ jàpp ne ci lay mokkal ñaari at yi ci lay beq bind kaamil jàng ci mabaadi wa ulumuddin bu dee daaray majalis yi ñetti marxala la marxala bu ne nekk ñetti at boo xam ne mbooleem xam-xami sharia yi ak luxal arabiya ak xam-xam yi ci des ñu daan ko jàng ci daaray majalis yi yépp dugal nañ ko ci waaye nag li yeneen xam-xam yi nga xam ni dawuñ ci sori ñu fexe ba dugal ko ci yu mel ne alqawaidul fiq yaag usulul fiq xeeti ulumu tafsir yi ulumul quran yépp programme yi dugal na ci ba tey daal mën nañu jàpp ne ku génn ci daara jooja du soxlaati muy jëggaani xam-xam feneen mën naa bëgg a yokk nag bëgg ami diplôme jàpp nañ ne programme bi ñu fi teg ku cay génne niveau licence gën jaa néew ko am ci njàng moo xam ne it waxtu wu ne li manqué woon ci daara majalis dañ ko mott mottali mooy dañuy natt li nga jàng étape bu ne bala ngaa jàll danañ la natt xool ba xam li nga doon jàng foo ci toll booy jeexalit danañ la binduloo mbind moo xam ne ci lañuy firndeele sa tolluwaay ci xam kon mën naa wax ne dañoo boole ngënee li daara majalis yu démb ak école moderne yi ci nekk ci yu baax lañ boole ci daara sëriñ bi université bi it nag niñ ko xam ne moom jàngaleex làkku arab la ak xam-xame lislaam yi yooyu mooy jiitu am nag yeneen yoo xam ne xam nañ ne yoonu murit jàng ak jaamu yàlla ak liggéey la ñu bari ay liggéeykat lañ waaye xereñuñ ndax tàggatuñ leen ci moo tax ñu wut fa ab faculté boo xam ne ay métier lay jàngale ndax xam-xam bi day tax liggéey bi gën a gaaw gën a rafet fere yi gën a néew naka noonu xeeti xarala yu bees yi yépp lu ñu fay jàng la mën naa jàpp daal laale defar nit daal moo ko tax a jóg nit koo xam ne li sëriñ seen wax léegi bu ñu noppee ci moom kenn du ko xebat ci diine kenn du ko xebat ci àdduna mën nañu faa génne daal ab ingénieur boo xam ne danga koy fekk ci kaw tëli bi muy defar ay tëli te bu julli jotee jumaa jum dem mën leen jiite ajjum ab médecin buy sol bolog génne bolog opératoire dem sol ab jàllaabeem dem jiite ji àjjuma wala sol xaftaanam jiite ji àjjuma ku mel noonu la ñu soxla ku mat ndax niñ gisee mbir yi fi nii mooy ay nit ñu ne fee ñu la diine ak ñu ne fee ñu naa leen niti àdduna kenn ku ne jàpp ne la nga nekk gën la sa morom nekk te loolu nag àdduna ñaari tànk lay doxee tànku diine ak àdduna fii ak ñi ngi xàjjale mbir yi jël ñu xamul dara ci diine jox leen àdduna dara du jàpp waaye fii ak sëriñub diine mi ngi des di diine képp la yam dara àdduna xamu ci dañ defarloo ko àdduna dara du jag ñu bëgg nit koo xam ne nag ni muy xamee diineem ba masala moo ko laaj mu tontu àdduna ja jëmi yëngu it na loo ko xamee daal sëriñ bi daal ci tënk loolu moo ci nekk kon ñëpp war a ñaan mu sotti ak jàmm am nañ ci yaakaar nag barki démb am na ndaje moo xam ne sëriñ Ahmad Badawi ay mbokki taalibe ci benn bis saa leen di wax lii barki démb lañ gis mu Muntaxa sasoo ca ci bis bi benn bis bi 6 milliards génn nañ ko ne ko daara alxuraan ñoo ko sasoo ay bokki taalibe lañ yoo xam ne ñu ngi ci réew mi bokk ci njaboot gi sëriñ bi xelam dal bu baax loolu nag kenn ku ne war ngaa yëg loolu ñaanu sëriñ Tuubaa gu nangoo ku ne ci noonu na fexe ba jàpp ci day dem moom faw day sotti insha allahu taala waaye ndam nag mooy nga fexe bokk ci salaam daa waxoon ne ku tabaxal yàlla ku tabaxal yàlla néeg bu toll ne tàggum picc yàlla tabaxal ko pale bu ëllëgee aljan boroom xam-xam yi neenu jàkk mënta tuute noonu jàkka ju tuuti ba toll ni mu tàgg mënta nekk waaye lu mu bëgg a wax mooy ku participer ci jàkka lu toll noonu moo di ne liggéey bu mel nii bu kenn bu ci kenn xeeb dërëm ba nga ciy def fexeel ba sa dërëm bokk ci rek bu ñu wootee it fexeel ba sa njaboot bokk ci sëriñ bi ni mu ko waxee sëriñ Muntaxa daa wax ne aw jiwu laa bëggaat jiil al jiirul awal ñi sëñ Tuubaa defaroon ñu mel noonu la bëgg a sosaat te it fañ fañ sosoo woon la ñuy jógewaat kër gu ne am ñu fa jóge bu ëllëgee ñu am ca mbooloo moo xam ne ñooy demaat ci réew mi

te nanguwoo ko génne loolu la ñu bañ moom waaye bu fekkee nag dafa bari rek comme ni muy xewee nii bu ñu door a bay yu bari ñor waaye soo demee ba ca kanam nga mën koo génne li ñuy bañ daal mooy nga denc ko nit ñi soxla ko nga naan dama bëgg mu gën a metti loolu moom ku ko def ixtikaar la yoon sañ naa ñëw génn ko jaay ko jox la ci sa am waaw yooyu day masoon naa cee wax daa bokk ci yu bees li ñuy tudd ay bidaa sunu yoon wi dafa am ay bidaa yu ci nekk yoo xam ne mag ñi xamuñ ko woon ay gone yu jóg seenu njàng gut seenu tarbiya rafetut ñu jël tur yi gën a rëy ni moom lañ waaw ana ñooñu ak Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne al abdul xadim tur bi ko gën a neex ci ay turam mooy jaamu yàlla buy surgab yonente bi alayhi salaam bañ na ko ba muy woote askanul woote bi ci ab dëkkam askanu ko ci turam askanu ko ci santam al muridin la wax ku namu yàlla njabootam gi it loo ci daan gis afqarul fuqara wa axqaru kulli ma yura suñ mbàkki bu su daan bind loolu ko fi ñee sëriñ Chouaïb Mbacké radiyallahu anhuma daan na ko bind ki gën a ñàkk ci nit ñi ak gën a xeebu ci lu ñuy gis sëriñ Abdullah Mbacké daan bind ubaydu rabbi wabnu cheikhi nee na njaamus boroomam ñi njaamusu ndaw njaamusu xeebu waaye di doomi ab sëriñam sëriñ Abdul Xaadir Mbacké daan bind al abdu daif gis naa leer ba tey yoo xam ne al abdu daif Abdul Xaadir Mbacké la ciy bind léegi nag gis koo xam ne tur rëy lay wax ñaari yëf a ci la muy wax wérul bi ci desit tazkiyatu nafs la te borom bi noon na ku fala tuzakku anfusakum kon yooyu bokk na ci yi nga xam ne ñàkk a jàng moo ko fi indi nit ku xam ñu yar ko du askanu ci yooyu mukk waaye nag nit bu xamut yaruñ ko njaaxum ku ni mën na ko def tur wu ni mën na ko woote woo lu ne mën na ko woote woo te dara nag du ci lu bees mbokk yi tur wu ne ci taarix ni tudd na ko firawna xam nañu daan wax wax xamalu ma leen yàlla judul man xamalu ma leen yàlla judul man yu mel nii nag buñ ko bàyyee muy law foofu la jëm kon nañu bàyyi xel ne amul solo nit kuy wax lu wérul di ko duufale boppam ginnaaw ñuy duufoon ñëw duufalul seen bopp yow mi dara kon di duufal bopp warul yonent alayhi salaam sax àgg na ci bu ko nit masaan gis di tiit da koy wax ne ko dalal nit dong la jenn jigéen ci ne woon fii daan lekk ay seel moo a jur sallallahu alayhi wa sallam bëgg ku woyof lañ bëgg sëriñ Tuubaa loolu la jàngale kon ay tur yooyu sëriñ bi amul solo amul benn njariñin te nag lañ ci wax wérul boo ne maay borom leer yi te yàlla mi la bind xam na ne dara ci leer réwut ci yow koy nax sa bopp rek ngay nax loolu amul njariñ mbokk yi moom système waaw biir daara ji moom nag biir daara ji moom amul école école nekku ci système bay na ci biir daara ji moom daaray alxuraan dafa nekk ak daaray majalis ak université boo xam ne li dirasat al islamiyya wal lughal arabiyya la am na nag système mooy njàngum école yii. sëriñ bi liggéey na ci système bu mat li tàmbulee CI classe bu njëkk ba ba baccalauréat nga xam ne dañ koy boole njàngum arab njàngum diine ak làkk yi nga xam ne dañ koo soxla ci réew mi ni français ak anglais programme boobu nag danañ ko def ci biir dëkk ba ak fépp fu ñu ko soxlaa nga xam ne ku tabax jàkka daara fenn boo dikkee mën nañ la ko jox programme daara ji la université bee koy ëmb waaye jëmmi barab bee moom dañ koo jagleel rek alxuraan ji majalis bi ak kulliya bi yeneen yi nga xam ne ay système lañ nag mën naa ne ci biir dëkk ba mën naa ne ci yeneen dëkk waaye day topp daara bi waaye du comme classe yi ñu xew nii foofu moom li jàpp mooy gone gi bu jàngee alxuraan ba mokkal ko ci juróom-benni at bind kaamil day dugg ci système mu majalis bi bu ci jàngee ba am néew bac bu ko neexee bàyyi foofa àggale ci université bi bu ko neexee àggale ci majalis bi ba jeexal ca am fa néew licence boo xam ne it bu ñuy reconnaître lay doon ndax université bi norme yi mu laaj ci àdduna yëpp. sëriñ bi tànn ay nit bañ liggéey ko ba nga xam ne diplôme bu fa génnee àdduna bépp lañ koy nangu diplôme bu fa génnee àdduna bépp lañ koy nangu bu ko defee nag am na ay école ndax école yooyu lu tax mu waajal ko ne ñooy dugg ci université bi après lu mel ne école sëriñ Mourtala yi école sëriñ Cheikh Mbacke yi programme lañu defaral yoo xam ne dañ cey sukkandiku ku ci am baccalauréat ñu dugal la ci université bi nga àggale seen njàng bu buñ demee ba sëriñ bi gis ne. nañ tabax ay école yoo xam ne day topp université bu tabaxal ko boppam it ñu mën nañ koo def ci biir dëkk bi wala ci yeneen dëkk waaye jëmmi fee nga xam ne moom la sëñ Abdou Lahad bàyyi woon moom daa wax ne nañ fa def daaree alxuraan bi yoo xam ne gën jaa néew junni nit ba ñetti junni majalis bi noonu université bi noonu bu dee ñu da jàng alxuraan ñëpp fa la ñuy dëkk ñoo ko seeni sëriñ daara sëriñ beneen gàddul seen lépp noonu na it donga yee ci kër yëpp la ñuy ñu leen fay jàngal leen yar loolu mooy programme bi. jërëjëf sëriñ bi kii mu ne koo xam dafa bàyyi soxnaam ñaari yoon ak góor takkaat ndax bu ko bàyyee nga takkaat bàyyi wax ndax fasala gën wala déet. ñetti fasala góor gi fi jaar amu ci jeexit de xam naa loolu bëgg a laaj ku ku wàcc soxna ñaari yoon. parce que loolu nekkul baax da saw ji bu ko keneen takkee wàcc ko nga takkaat ko boo ko wàccee ñetti fase door na mat ñetti fase yooyu nag doo wax ne ñaari njëkkee góor dox na fi déedéet ñetti fase yaa ngi door a mat soo ñëw koo takkati jigéen dara waaw lu mel noonu de li ci boroom xam-xami ma bi wax bu fekkee ne nit ki dañ koo may soxna su ëmb sëy bu baaxut moom dañ koy tas bu fekkee ne jotee nañ ak buñ jotewut dañ koy tas bu fekkee ne jote nañ bañ tas sëy bi bu amee doom dañuy gëstu bu fekkee moom moo ko ëmbaloon manees na ko mayaat bu fekkee ne moom moo ko ëmbal dañ tas sëy bu amee doom ñu mayaat ko bu fekkee keneen na ko ëmbal nag aram na ko bu faw ci turu taxawaay bi ndax du tey rek nga def jataay bi waaye ay at ci ginnaaw. yaa ngi koy taxawee muy taxawaay bu rafet kon ñun ñëpp ñi ngi maase di la sant di la gërëm di ñaan suñu borom tabaraka wa mu defal la kàttan defal la wér defal la liggéey bu nangu te barkeel te nga yàgg teew fii ci barab bi dafi indi ay njariñ dafi leeral li sëriñ bi bëggoon ñu jaar kon nee na ñu ngi lay sant xam ne ci seen xol lañ ko tibbee muy lu rëy ci ñoom ginnaaw loolu tamit ñu fàttali ne waxtaan wi muy conférence bi ñu ko tuddee Serigne Bassirou Diop nga xam ne moo doonoon ñaareelu xalifa Serigne Massamba Diop Samb di ko ko dara jaale ak njabootam di bu baax taxawaayam ak dogoom ak bëseem bi daanaka wala njaboot gi daanaka mën nga ne genn muy melokaan bi nekkoon melokaan mu dëddu àddina xam àddina bu noppi dëddu ko xam-xam jaamu yàlla liggéey melokaan yooyu rek moo nekk ci ñoom ba tey kon ñu yëgal mbooloo mi ne kon conférence bi ñu ko tuddee Serigne Bassirou Diop mi xam ne mooy ñaareelu xalifam Serigne Massamba kon Serigne Mbacké daal ci gàttal mbooloo mi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm su ko defee nag dañ koy daal di yi mu daal di ci kër gi.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

dëkk bi rawatina ci wàllu infrastructure ak li nga xamante ni taalibe yi ak daayira yi fi nekk yëpp def nañ ko ak siyaar yi incha allah bëgg ñu toppee di ngeen ñu am suba ci seen Touba Argentine TV ak itam fi nga xam ne moo di Touba Vision sant baax sunu caméraman Baye Mbaye mi xam ne mu ne àndal ak Serigne Khadim Seck ki nekkoon ci kàddu gi di Modou Mahfouz Diakhaté jërë ngeen jëf